ñu ngi nuyu ñu fi toog ñëpp di ziar ñu fi toog ñëpp aussi du nuyu délégation yi nga xam ni ñoo fi ñëw tey jii ñëpp ñu ngi leen di nuyu rawatina aussi waa Grand waaye ci biir nuyoo bi aussi ñu jël di ci jiital. le maire de la commune ouest monsieur Alioune Sow di ko jox wàccewaayam fii ci Grand di joxaat wàccuwaayu aussi le ministre Thierno Alassane Sall li nga xam ne moo fi yebal tey ji délégation am ñu ngi ni toog di ci boole aussi honorable député monsieur Abdou mbaw mi ngi ci yoon bi di ñëw waaye rawatina aussi ñu nuyu. ODCAV Thiès ñoom it ñi ngi fi toog waaye ñi nuyu aussi sunu zone trois a bu Birane Niang mu yabal fii délégation ñoom kër Lo Ndeye Niang ñi ngi nii toog aussi kon ñu ngi nuyu délégation yi nga xam ne ñoo fi toog yëpp di leen jox seen wàccuwaay ci li nga xam ni tey jii moom la ñu ñëw fii ci préparation dem bi nga xam ni moom la ASC Grand Thiès di dem Euh, Ziguinchor ñoom it euh, ñu ngi nii ñëpp ñu ngi fi toog lu ko waral mooy ñëw doon feddiluwaat kóllëre pour xale yi nga xam ni ñoom ñoo war a dem jogante ji fii ci Ziguinchor mu nekk loo xam ne ñu koy rafetlu ñun ñëpp di Grand Thiès ñu koy rafetlu ci kanamu le maire Alioune Sow ñu koy rafetlu ñu ñëpp vraiment suñu xool sedd na ci ñëw bi nga xam ni moom ngeen ñëw tey ji fii di leen wax ni ñu ñëpp waa Grand ñu ngi leen di jaajëfal di wax ni li nga xam ni moom lañ fa mbëbët pour dem fa yàlla nañu ko yàlla jox ñu indi ko fii ci jàmm tey nag suñu xool dafa sedd lu tax suñu xool sedd mooy buñ fi toogee délégation yu wër Grand Thiès yëpp toog fii le maire Alioune Sow jiite ko mu toog fii dafa nekk loo xam ni suñu xol sedd na monsieur le ñu ngi lay nuyu di la wax ne la ñu ngi fi gis ñi ñëpp tey jii lenn rek moo leen fi indi muy teraanga moo leen fi indi du xaalis du dara waaye yëg-yëg mënutoo weesu ñoom ñëpp ñu ñëw fii toog fi tey jii ci Grand lu tax ASC Grand Thiès day dem Ziguinchor pour phase nationale ñu ne ah comme Grand Thiès la waaye du Grand Thiès région de Thiès moom moo tax tey jii moom la ñu couvrir ji ñu ni bàyyil ñu ñëw def ci seen participation participation mooy bàyyi ñu ñëw wax xale yi nga xam ne ñoom ñooy jongante ji fële ci Ziguinchor pour jox leen courage pour jox leen motivation pour bu ñu demee jël ndam li indi ko fii ci Grand Thiès loolu moo leen fi indi tey jii. ah ñu di la xamal ne la sa xarit Thierno Alassane Sall ñëw na fii yàggul dara jël participation jox ko ASC Grand Thiès di la wax aussi que ni sa xarit sa frère muy le maire si la ñëw na aussi moom moo njëkk a jël enveloppe bu dul ñëw ne Grand Thiès kat comme man dama nekk maireu Thiès damay jël njëkk a ñëw indi sama participation avant sama xarit alin Sow di indi participation maa koy njëkk ndax man maay Aline Sow Aline Sow mooy man kon sama participation dama koy njëkk indi fii ñu di ko rafetlu trop ñu xam ne loolu lépp sa wax aussi ci la bokk sa teewaay aussi ci la bokk ñuy jaajëfal loolu kon tey jii su loolu amee tey jii lépp rek yow lañ ko defal Thierno yow loo ko defal sa xarit Abdou Mbow démb xaaju guddi la ñu yëg nii. voilà mooy doog a ñëw nii honorable député donc démb xaaju guddi la ñu jox wàccuwaayam nañu fële ci Ziguinchor jëlal nañu hébergement foofu fay na ko ne xale yi aussi bu kenn am lu la metti foofu xale yi bu kenn am benn naqar foofu hébergement bi mu ñër jëlal foofu dafa ne woon sax nañu xool hébergement bu gën a mag foofu ñu jëlal ko xale yi nga xam ni ñoom ñooy jongante ji ci Ziguinchor mu ni beneen bi mooy que ni dina def le tout pour que dina leen mettre ci conditions yi bien ñu xam ne honorable député yow la ko defal monsieur le maire parce que tey jii yow yaay maire gox bi fii bu ko neexoon tey jii bu demee ba Ziguinchor mën na faale ASC Grand Thiès mën na bañ a faale euh, que ni Grand Thiès mooy dem jàmm gënal moom la moom mooy euh, jongante foofu te moom mooy ASC waaye dafa ne Grand région bi lañu lañu la ñu demal ñu ñëpp couleur région bi la ñuy demal kon moom honorable député Abdou mbaw nee na moom dafay def participation ci biir def ko ci biti kon honorable ñu ngi lay ziar di la euh, jaajëfal aussi di wax ni ñun waa Grand Thiès yëpp kontaan nañu ci li nga def kon loolu ñu la ci jàpp waaye yaa ngi ko defal le maire Alioune ndax bu la neexoon mënoon nga ni carrément maak Alioune Sow kot bokkuñu fu ñu jëm bokkuñu fu ñu jóge waaye danga ne Thiès la ñor Alioune Sow ne moo ko ñor kon lii soo ko defee tey jii def nga lu rafet honorable aussi ñu ngi lay wax ne la le député euh, le ministre Thierno al Sall yónnee na fi délégation mi ngi ni toog tey ji soo ñëwee devant le maire baax na ñu présenté la aussi ñoom ñoo fi nekk. bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal samay woyjur yàlla xare leen àjjana ak mboolem jullit buñ fa fekk ak ku leen fa fekk maa ngi nuyu eh, ñi fi teew ñëpp jiital ci monsieur le maire alin Sow teg ci honorable député Abdou Mbow mi nga xam ne sama frère la. sama rakk la ci lu yàgg sax di ko yóbbante nuyoo frère am Mbow mi nga xam ne partagé nañ lu bari e, di nuyu le représentant du ministre Thierno Alassane Sall di Ndiasse mi nga xam ne aussi c'est un frère di ku baax moom it maa ngi koy nuyu di nuyu aussi le président de l'ASC Grand Thiès bi nga xam dama ko tuddee le président des président Babacar Diallo parce dafa baax yaatu affaire am bi defam bi du ci Grand Thiès rek ASC yëpp la ko boole étoile daa mel ni équipe la heure bu ñu fëggee buntam dafa ñuy jàppale te kenn du ko yëg loolu tax ma tudde ko la président des présidents balaa ngaa mën a jiite dangay ngay ubbi sa dënd yaatal ñëpp boole équipe yëpp mais fii laa dëkk fii laay def du ma defal keneen ku ma bokkalul du dox man loolu laa ko nawee moom nawe ko aussi Aline Sow musul jàppale tey Grand Thiès ak keneen tëb fi étoile à chaque fois day jàppale sama ASC moom tamit loolu dama ko ci naw du nuyu aussi le premier adjoint au maire de la commune est di Cheikh Tidiane Lo di aussi sama càmmiñ di sama xarit di nit ku baax aussi ku disponible parce que Grand Thiès ñor na ko daf ko def ni Thiès est la bokk mais dafa ñëw ouest parce que Grand Thiès équipe bu ñëpp la man nag li ma leen di wax lenn rek la di nuyu aussi jaawara mi nga xam ne moo fi teewal le président de l'ODCAV et de l'ORCAV Baylo Baas ak Ousmane Diop yëpp moo leen fi teewal moom it di ko disponible di ku ñu jàppale barki dem boo njaay ci zone bi en formation pour ñu xam tey fan la ñu war a teg suñu tànk ba bañ a dugg ci ay ndëgg sërëx kon yaakaar naa ne moom aussi bu fi teewee ñu war a saluer teewaayam di nuyu aussi tous les membres de la zone 3A bàyyiwuma kenn que zone trois a dañ ni booy seet zone yëpp man damay ni suñu zone moo gën ci zone yi xam nga lu tax ma koy wax ñëpp a yéenante jàmm amul kenn ku bañ moroomam balaa nga ko doon xam ñu génn kenn bëgg a rendi ku bokk ci zone bi ñëpp ay takkoondoo ànd xeex ak yow parce que ñun dañoo am solidarité boo xam dafa ne suñu biir dafa jafe pour nga gis ko ci yeneen zone yi lu mu metti metti bu neexoon daju nag ci ne xeex ba doyal mais bu ñu génnee ci biti kenn du laal benn équipe bu bokk suñu zone kenn ci ñun d'accord ko kon solidarité boobu man moom laa nawee zone bi di ñaan yàlla aussi solidarité boobu yàlla na yàgg ci biir zone bi damay ne aussi suñu zone ñoo fi mën xam nga lu tax ñoo fi mën chaque année ñaan naa yàlla ñuy am équipe buy dem phase nationale tant que ñu ngi fi am ñoo fi mën fi mu ne nii tant que ngi am équipe buy dem rek ñun ñoo fi mën man loolu laa jàpp te mën googu yàlla na yàgg bi ngeen am da ngeen a rëcc rek honorable waaw par par euh, rëcc la rek parce que ki ko waroon a jël moo dem moom la ñu porté réserve ngeen rëcc te rëcc boobu sax yàlla na yàgg parce que lépp Thiès la biir Thiès la rëcc bi jig nañu kon nag di ñaanal Grand Thiès kade bii keroog ba ñu finaaloo euh, Kaolack dañoo jël oto dem fekki leen Kaolack keroog le premier adjoint au maire ci otoom laa dugg mu départ ñu dem Kaolack support de Grand dugg ci ndox mi taw te def lépp ba Grand jël coupe bi ñu kontaan ba bëgg a dee lu ñu doon metti yëpp keroog ci r bi Grand Thiès dafa wàññeeku parce que bu Grand Thiès pertoon r perte man xam naa duma gaaw a ñibbisi mais bi Grand Thiès gagné vraiment dañoo siggi kon ñuy ñaan yàlla ndam li leen yàlla mayoon ba ngeen jële ko euh, Kaolack indi ko yàlla na ngeen ko jëlewaat Ziguinchor indiwaat ko yàlla nag mooy maye ndam moo koy joxe mais da ngeen di fagarlu farlu dëgërlu am fulla am fayda déterminé wu parce que nawetaan du affaire football góor rek ñun jigéen bu ñu demee ba nekk ci nawetaan man bëri na ñu ma xam cees nawetaan a tax ñu xam ma su dul woon nawetaan duñ ma xam dem naa màkk ba ñëw aj taxul ma bàyyi nawetaan ba ma demee màkk lu ma njëkk lijjanti ndax boo ajee màkk da ngay bàyyi football. ñu ne ma Médine am na équipe bu football Màkka am na équipe bu football man kon bu ma delloo toppaat nawetaan parce que man loolu laa gëm li ma bëgg laa bëgg ci sama xol kon nag defe naa ni nii ma reyantee topp nawetaan xale ba mag ci laa yaru ba tol nii ma tol reculé wu ma ci benn yoon ba ñëw tey nekk présidente d'ASC sama waa équipe honoré ma lool delloowaat ma cër bi kon defe naa ni jigéen ñëpp war a jàpp ci ginnaaw équipe yi ñëw jàppale leen pour que ñu dem football du fo du caaxaan du affaire ñàkk fayda affaire ngëm-ngëm la ak jàppale sa quartier loolu moo ñu ci bàyyi yéen aussi na ngeen takku jàppale waa Grand Thiès jàppale waa Thiès jàppale aussi waa jàmm gën ya ngeen fay fekk ñoom it ñu jàppale leen ngeen xam yéen bokk ndey bokk baay yéen bokk lu ngeen di xeex seeni supporter nañ nekk waa supporter jàmm gën yi benn lu ngeen di xeex ngeen bokk ko àndandoo ko xeex yéen ñëpp cees ngeen dëkk xeex leen pour que ñaari coupe yëpp dugg Thiès jàmm gën jël bu mag bi ngeen jël. ci teg. Euh, honorable député Abdou mbaw di ko félicité ci déplacement bii mu def parce que déplacement bu rafet la jóge jàmm gën ñëw ba Grand Thiès lii day wane ni rek bu cause régionale taxawee amatul couleur locale c'est la couleur régionale qui compte defe naa loolu la fi wane nii di nuyu les joueurs di nuyu aussi spécialement sama xarit Babacar euh, Babacar di njool di nuyu toutes les délégations ici présentes le ministre Thierno Alassane dafa ma woo ci suba mu ne ma woowal Ndiassé woowal Issa ngeen forme une délégation ngeen ñëw teew ci événement bi c'est-à-dire le départ de l'équipe pour Ziguinchor dans le cadre des phases nationales nee na bu ngeen ñëwee ngeen ni mbooloo mi ngeen wax joueurs yi wax encadrement bi wax le président que moom xelam bi yëpp moo ngi ci yéen moo ngi leen di ñaax di leen yokk courage leen encourager pour que exploit bi ngeen defoon daaw ngeen defaat ko di leen ñaanal aussi que ngeen dem ci jàmm def seen compétition ci jàmm ñëwaat ci jàmm indaale ndam li parce que xam na ni mën ngeen ko c'est pas la première fois ngeen di dem ci compétition yu am dimension bi di leen wax ne aussi le maire Thierno Alassane Sall dafa mus a dugal loxoom ci ASC Grand Thiès mës naa doon waxtaan ak Fallou Baax sama moo moo grand frère Fallou mu ne ma Abdou Thierno Alassane Sall mooy ki njëkk a dugal loxoom fii ci ASC Grand Thiès yàgg na yàgg na yàgg na appuyer ASC bi ci ay jeu de maillot ak yeneen yi leneen ak leneen donc fa mu newoon ma nga fa ba léegi te incha allah di ngeen ciy rendre compte fii ak ay diir di ngeen gis loxoom dina yokk taxawaayam dina gën a yokk ci yen donc wax bi daal du gudd ngi leen di ñaax di leen gën a ñaaxaat encore di leen encourager di leen ñaanal ngeen dem ak jàmm wane fa fulla ak fayda monsieur le maire wax na ko dégg naa préliminaire yi li mu wax lépp dëgg la nee na li ëpp solo mooy disipline il faut que ngeen discipliner discipline ci comportement mais aussi discipline la discipline dans le jeu c'est c'est fondamental Cees waay fulla ak fayda la ngeen xamee mais ci biir discipline boobu ak fair play boobu ngeen wone aussi seen personalité seen esprit de de de esprit ñàkk fighting fexe ba coupe bi ngeen xëccaat ko parce que yéen ko moom yéen a ko am fii la nekkoon yéen ko moomoon daaw ngeen xëccaat ko indiwaat ko fii Thiès ñun ñëpp ñu bokk feete ko loolu lañ leen di ñaan te loolu incha allah dina am ñi ngi leen di ñaanal merci. njëkkee ci salaamaaleykum nuyu ñëpp nuyu ko ak député ñëpp ñu fi teew rek parce que déplacé mag yombul quoi ñu ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm waaw ak dirigeant yeeg ñëpp ak dirigeant yi. di nuyu waa Grand Thiès waaw ñun li ngeen wax yëpp dégg nañ ko te lépp lu ngeen bëgg rek dinañ ko def waaw ndax xama rek li yombul quoi def ngeen lépp lépp lu ngeen waroon def def ngeen ko te fond taxul may wax ndax déplacement rek dafa métti surtout ci mag ak ñoo xamante ni am na lu ñu war a lijjanti ji quoi waaw mais nag gaa yi nii. te du démb lañ fubal boobu ba tey ñu ngi fubal te damaa bëgg bu ngeen tëddee ngeen nelaw seen xel dal te ñu ñëw seetaan bu ñëwee toog nañ jàpp ne victoire leen fa indi ñuy woote tamit di laajte damaa bëgg bu ñu wootee nañ laaj ñaata lañ dóor mais bu ñu laaj ñaata ñaata bon loolu woon rek parce man. ci sama bopp laa koy njëkkee wóolu naa sama bopp wóoluñ nekk sama ginnaaw wóoluñ nekk sama kanam. waaw. waaw comme dab rek ñun moom coupe lañ xam waaw. <laughs> <laughs> bu ñu doon jiyee capsule sax ñooy gagné gars yi dañ da taamu nañ di ko wax taamu nañ di ko wax li des nag ñu baax ko loxoy yàlla waaw te ñu bañ a naagu tamit loolu da cee am solo te xam ni football moom mooy loolu da ngay jàpp ni yaa gagné dem ba digg ba affaire yi tourné déception am te boobaa tamit na xam nuñ koy dundee ndax àdduna ak déception ñoo ànd kenn xalaatu ko nag pour l'instant te yàlla bu mu am sax te gëm naan du am mais tamit dañ koy sóoraale baax na trop waaw di sant ñëpp nag lii moom mënuñu leen koo fay jàpp naa ni bu ñu indee coupe bi sax fayuñu leen ko waaw parce que lii yombul sant nañ leen ñoom ñun ñëpp ci turu joueurs yi ak dirigeants yi ak dirigeantes yi Hamadi Amadou le maire Aliou Sow nga xam ne suñu frère la di nuyu madame la présidente Cheikh Lo bi nga xam ne mooy euh, le premier adjoint au maire de la commune Thiès Est di nuyu la délégation qui représente le ministère Alassane Sall di nuyu suñu grand frère Diawara bi représente l'ODCAV et l'ORCAV parce que. je pense que le patron de l'ORCAV et de l'ODECAV ñoom ñëpp ñi ngi Ziguinchor di nuyu le représentant de la zone di nuyu aussi ñi nga xam ne ñooy les dirigeants de l'équipe di nuyu képp koo xam ne yaa ngi fi teew di nuyu le président de l'équipe di nuyu joueurs yi euh, di rafetlu bu baax kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko fi Euh, man ce matin laa jóge Ziguinchor maa ngi juge Ziguinchor tey à 10 heures parce que depuis début phase yi maa ngi fa yàlla def na seetaan naa ñaari match Diamaguène yi ba démb moo ci mujj ba tey suba laa fa jóge donc mën naa ne Thiès maa ngi fekk si pratiquement ay 14 heures euh, di wax rek ne ñun suñu teewaay fii li ko waral mooy ñun ay produits mouvement nawetaan lañ man personnellement chaque jour ma wax ko parce que ASC Diamaguène personnellement man mii nekk naa fa joueur nekk naa fa secretaire administratif secretaire général président commission financière président de l'ASC pendant quatre ans donc mën naa ne valablement produit mouvement nawetaan et nawetaan damay wax souvent les zones politiques képp ku yaakaar ne yaa ngi ciy investir pour am ci gain politique perte nga c'est un investissement à perte loolu mooy li nga xamante nii moo am parce que mouvement ya nawetaan yàlla la koy bëggaloo rek nga ciy def te yàlla tax mais boo ci dee def di yaakaar ne gars yi dinañ la wooteel moom perte nga donc pour wan leen ne ce ko fait ci mouvement nawetaan bi ñu defal ko ASC Grand Thiès jàmm gën ak leneen dañ koy def parce que jàpp nañ ne loolu moo ñu war nit ñi waruñu sax remercier parce que jàpp naa ne bu fekkee da nga nekk responsable ci dëkk nekk fa maire député ministre wala leneen waa dëkk ba soxla sa taxawoo ci waroo am responsabilité parce que li ñu yor nii moomuñu ko gënuñu fi kenn ndey gënuñu fi kenn bàyyi dañ ñu koo dénk kii ay impôt jàmbur lañ koy fayee muy lekk essence su jàmbur man ay impôt jàmbur lañ may fayee ak keneen ak keneen ak keneen donc yéen su ngeen soxlaa impôt yooyu dañ leen ko war a delloo donc jàpp leen leen li ñu leen jox seen yëf la mayuñu leen ko saraxuñu leen ko yelwaanu leen ko muy le ministre keneen ak keneen a ci am parce que adduna bi dañuy war di wax ne nit ki mënuñu laa fay ay impôt jàmbur jox la oto bu sa moroom dawal di la fay salaire bu sa moroom amul ba pare nga boole di sàcc seen alal loolu moom ku ko defit gis ko donc je pense que lii ñu leen taxawoon yi loolu mooy suñu wareef suñu ko deful rek tooguñu suñu place donc je pense que loolu c'est le rôle de tout temps responsable muy maire beeg ministre baag député baag képp koo xam ne bonne volonté nga sax nekk ci damay remercier au passage Dabo bi nga xamante ni aussi ñi ngi doon jokkoo di remercier bu baax aussi grand Fallou Ba parce que bi ñu rencontré woo aussi à Ziguinchor moom ci boppam moom ma expliqué le problème mu ne ko ni ñu ko war a defele jàmm gën noonu la ko war a defele ASC Grand Thiès parce que tey jii bu ñu demee à Ziguinchor bu jàmm ngeen di football wala Grand Thiès di football amatul ki dañ naan Thiès mooy football parce que démb quand l'équipe jàmm ngeen joué Bayla Baas mi ngi taxaw Ousmane Diop mi ngi taxaw ñeneen ñi nekk ci yeneen zone képp koo xam ne Thiès waa nga rek nekk fa yaa ngi taxaw ñooñu li leen soxal mooy ndamul Thiès tey jii bu ngeen fa taxawee aussi képp koo xamante ni nii nekk na dem fa ndax ASC jàmm ngeen yéen jàpp leen ne yéen a tax mu dem fa moo tax li ñu leen di wax mooy gañe boo ko bëggee def defoon ngeen ko li leen ko may mooy disipline esprit de groupe bu bien parce que esprit de groupe bu baaxul mun leen a am dara disipline mooy lan mooy dégg seeni waxu entraîneur parce que bu ngeen xasee départ fii dem Ziguinchor seen baay Ziguinchor mooy seen entraîneur mooy seen yaay mooy seen papa lépp lu mu leen wax def leen ko da ko war a def lépp lu mu leen teree da ngeen ko war a bàyyi je pense un joueur su bëggee am ndam dafay discipliner te discipline joueur mënuñu ko nat fenn lu dul déggal entraîneur parce que je pense que loolu lañuy xaar ci bépp joueur te loolu jàpp naa ne jarul ñu leen koy waxaat parce que bu ngeen demee ba jël phase nationale dem fi gën a sori ci euh, li nga xamante ni moom mooy nawetaan c'est parce que jàpp naa ne am ngeen valeur yooyu donc ñu leen ciy gën a ñaax. Euh, di wax rek ne ñi ngi remercier ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi fi parce que àdduna lii rek la yéen nag comme ni ngeen ko waxee aussi c'est vrai que def nañ li ñu war mais fi mu toll nii yéen yéen a ci des li ngeen war a def nag mooy dem gañ a bi indi ko comme ni ñu koy ñaanalee jàmm gën ak Thiès yëpp donc loolu mooy euh, li nga xam ne bëggoon naa ko wax présidente wax na sànq dañoo rëcc waaye jàpp naa ne rëcc moom soo yeggul fa ñuy rëcce doo rëcc donc loolu tamit baax na ci am solo te olof Njaay day wax ne daw bi rëccit ci ngóore la bokk donc loolu muy wane rek ne moom à part suñu ay relation yu ñu am ni on a des relations particulières parce que wax na léegi moom ak sama grand frère ay xarit benn bakkan lañ yàlla def na bokkuñu politique bokkuñu parti mais fu ñu gisee dañuy toog waxtaan on est ensemble dans le conseil départemental te suñ fa jot dajee jàpp naa ne lépp loo xamante ni dañ koy seq jàmm lay doon Aliou Sow mi suñu frère la démb tey doog ñëw comme ni may waxee rek fii dara ne rien n'est éternel loo fi gis day jeex donc responsabilité warul tax nit soppeeku wala mu changé ku mu soppi wala nga changé rek c'est parce que ngaaka la comme ni ko gars yi di waxee donc vraiment nañu ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen ndam. te lépp loo xamante ni mën nañ ko incha allah dinañ ko def man nag comme dama bëgg nawetaan moom jàpp leen ne di ngeen ma gis Ziguinchor parce que man même Thiès su ma fi nekkee chaque jour damay seetaan match nawetaan moom bu neexee yàlla moom moom di ngeen ma gis Ziguinchor ci ay fan yu néew je suis revenu aujourd'hui am ñu may lijjantiwaat moom léegi ma delluwaat bu neexee yàlla donc amul benn problème. ñu ngi nuyu ñëpp mais di euh, tàmbali ci nuyoo bi. comme li ñu wax euh, muy honorable député di nuyu ñu fi ñëwal ministère na la san euh, di nuyu waa zone bi yëpp man déjà je tenais à venir euh, vingt minutes avant pour ñaax joueurs yi ci discours sportif la ma waxoon air sans daaw wax naa ko dirigeant jàmm gën y a même pas vingt jours sama bureau parce que dama toog ndekete ñoom ñoo nañ fa gisewuñu man pour man dañ ma envoyé wul ma jël suma téléphone woo leen mais yéen dama gisul Sonko ñu ne ma noonu mu ngi ci ñëwoon nañ mais instant boobu maa ngi ànd ak Idrissa voyage ñu jox ko bokkum donc j'avais pas le man souci bi c'était pas yéen ou ñoom je crois que ñëpp gis nañ ma jaxaaw bi muy def finale phase nationale ñu copte ma comme entraîneur pour ma ñëw yóbbu équipe bi et pourtant Sele ngi fa woon euh, R100 même chose Grand Thiès joué na fi phase nationale ba finale entraîneur bi feebar maa coach équipe bi ci finale bi ñu koy gagné phase nationale yi fii à Thiès donc discours bi ñu doon passant c'était le discours sportif pour ñaax leen ngeen xam et pourtant grand Kassé bi muy wax loolu la wax bi may wax fekku fi l'honorable député mais dégg nga li mu leen wax l'esprit de groupe c'est ça qui gagne une compétition ce sont ces différences mooy indi ñu ne ah équipe bi lii c'est ce qui perdre Grand Thiès les phases nationales bi ñu voyagé wax naa ko fii te ma bureau waxoon naa leen ko la ma wax R100 wax naa leen waxat soxlawuñu équipe buy gagné dans leen discipline parce que vous défendez l'image de Thiès su ngeen demee am fa benn comportement bi gagné di dina neex indi ngeen coupe bi mais dafa am fu muy répercuter après parce que moom tey day dem fenn wala man ma dem fa wala keneen dem fa ku nekk bokk Thiès di wax ci waxu Thiès ñu ne non yéen moom vous êtes comme ni ñuy wax nag mooy comme ba léegi Sénégal dañ naan ñu yéen mën ngeen a xuloo ci seen biir mais su Thiès euh, soxla ngeen fàtte loolu yéen it bu ngeen di dem discipline boobu lañ soxla ci yéen wax naa leen sànq ni condition moom pour gagner gars yi dinañ leen ci mettre je crois que jarul ñuy wax fii li ñu daj ci fête nationale lii ab Mbow def mooy li mu war a def man suñ ko ciy tagg saa ma fee riir. daaw bi R100 waree dem yëkkati enveloppe joxe ko ñu naan maire sàngam la mu joxe ak suñu maire benn la j'ai dit ces gens n'ont pas compris suñu comprendre du def différence entre jàmm gën R100 Grand Thiès ak yooyu parce que ñun euh, defuñu différence boobu moo tax man bi may woo waa jàmm gën esprit boobu loolu barki bi may woo Fallou ba dama ne ko fexe leen ba joueur u Thiès yi fi ñuy dal yoo sax bu mu leen mat mu may ree ma ko non je ne ris pas badine wu ma ci fii booy di dugg muy suñu équipe muy jàmm gën mu ne ma jàmm gën ils ont un ñu ngi wër bu kii ma ko non ànd leen ak waa ODCAV waa ORCAV j'ai confiance en ces gens là ñu fexe goos yi bu ñuy ñëw dugg ci foo xam ni il m'a parlé de coût ma ko c'est pas important li ngeen di fay pour booy nekk ci kër gu baax amul solo dama la wax lu leer fàllu lii laa waxante ak moom téléphone j'apprends qu'on me dit que oui l'honorable député a pris des engagements vraiment defal ñu loo xam ne mais il l'a fait pour lui te je su sur la li mu wax nii ñii ma nekkal nii dans le conseil municipal xam nañ ci loolu man je crois que septembre lay def vingt cinq ans de métier d' président de l' association des entraîneurs de Thiès et deuxième vice président au niveau national deuxième vice président des entraîneurs au niveau national su nee nawetaan ku ci def yaakaar ci gain da ngay perte ñoo bokk analyse laaj ko ñi fi jaar ñëpp foogoon mën nañoo mbubboo Orcave wala Odecav yàlla lay def élection yi topp sax ñoom dañuy poser candidature perte c' est une preuve. donc suñu devoir la li ñuy def quand tu mets beaucoup de ñu ni noonu li muy def yàq la du yàq tu le mais dans ta jeunesse quand on dit Diamaguène voyage nag tant de millions Grand Thiès voyage c'est mais c'est une satisfaction morale li mu ci indi morale mooy tey honorable du dem assemblée wala ministre bi dem toog conseil bi ñaa ko yéen seen booyee dañoo ñëw Casamance lekkuñu mais suñ koy wax fële député man du ma député mais bu ñu koy xas moom lañ koy xase man su ma demee AMS jàmm gën nekk dans de mauvaises conditions mais Abdou Mbow du fa nekk mais dañ naan ko mais dañ naan may amoo wax seen joueur yi moom Casamance la ñëw am problème mu lekk donc xas bi ci ki muy dal fexeel ba su def jotee nga bañ jàpp ni fii laa bokk wala bokkuma fële ñëpp ci yem nag li Abdou Mbow wax moi je le ci li mu wax ci position bi du ministre bi du man du moom député du directeur général bi lu fi waaye def jamoo jël ci sa ndono papa wala sa ndono maam nga def ko ci alalu askan bi nga leen delloo que ça soit très clair man Alioune kese enseignant d' éducation physique mais aw ma 2 millions 500 yu may jox école taan muy def mais c' est parce ma dénk lu askan bi moom mais li ci am mérite rek mooy li may wax Abdou Mbow am na ñu kon ñi ci nekk ci place boobu mu war leen te defuñu ko mérite bi foofu la nekk moo te tey bu ñu ma nee yow dem nga Ziguinchor fekk waa Grand Thiès nekk di wër leen nga jël sa oto taal ko sonn ci pour ñu nekk dans de bonnes conditions dañ la war a jaajëfal parce am position sax xëy na bu gën a fort bi nga yor mu mës cee nekk te defu ko intéressé wu ko parce que jàpp na ni jeunes yi jaruñu ko mais yow xam nga ni lii sa devoir la pour nga def c' est pas parce que da nga nekk président mu ma neta man it même chose honor euh, ministère général Alassane Sall même chose beneen directeur général bu fi def wala keneen même chose donc c' est Thiès au autour de l' essentiel mooy tey nañ fexe li Ndeye Niang wax man ñi rëcc sax ci laa ëpp confiance ndax équipe rëcc na fi gagné coupe d'Europe am na fi de repêché équipe Danemark mu ñëw gagné coupe ba dem donc jàmm ngeen moom am nañ njortu ne repêchage bi coupe bi dina ñëw yéen nag la ñuy wax non non non ça c'est sûr je je parle technicien li may wax nii c'est des c'est des faits yoo xam ni li ñuy wax ay jamais deux cent yooyu c'est des faits qui sont là nga koy dund di ko gis te yamul foofu rek Ismaïla Diallo arbitre international daa arbitré match tas ko Jaraaf Gia ñu ni kii tey lañu koy dàq. fii FIFA def ko ci lañ ko bind lettre mu dem ñu def arbitre international lu kenn mësul xalaat pour diir que toujours li ñuy jàpp ni mooy liy yàq fa la ñuy jaare pour mu defaru li ñuy wax daal mooy daaw bi ñuy dem dañ leen a boole yéen ak euh, mbuuran enveloppe bu am doole ne leen ren dinañ ko yokk te incha allah dinañ ko yokk jarul lim man je suis contre ñu nekk naan ay def naa temps day indi rivalité rek ëllëg ñiy toog ci biti naan non ministre bala mu def amul importance si le ministre a fait un ou deux pour ngeen nekk dans de bonnes conditions nous on fera incha allah dañ koy renforcer ci loolu bu benn kaña tëbee keneen ku tëb dañ naan beneen kañaa ngi rek mais kaña kaña la donc ñun ñëpp nous sommes des responsables nous avons le droit moral de vous soutenir on vous mettra dans d'excellentes conditions c'est pourquoi Abdou Mbow dafa demal boppam mais moi j'ai dit au président de la commission sport mu ngi ni toog ak kii tey suba laa wax ak ñoom ma ne leen takk leen seen bagage vous allez voyager dans dañuy dem ay restaurant à Ziguinchor moment bi ngeen fay nekk yëpp daaw dama voyagé dem étranger ñëw ñu ne ma dañoo seetaani match d'ouverture ñibbi si di xaar final ils l'ont regretté en conseil municipal dama leen wax dem leen ngeen toog fa problème bu jeunes yi am ngeen jël seen téléphone woote mën ngaa jox nit ki comme lu ñëw Abdou Diouf ay millions beneen problème bu dul xaalis surgir fa ñu ko yàlla mën nañ ramas nit ça c'est un problème de justice xaalis moo ko réglé non du ko réglé mais téléphone ngay jël woo Abdou Mbow mu woo procureur procureur woo collègue procureur ñu bàyyi ko mu dem ana lu fa xaalis joué donc suñuy wax dem leen du pression toog rek xale yi lekk ñu naan no c'est pour que ñu veiller ci yéen ngeen nekk dans d'excellentes condition muy yéen waa Thiès daal en quelque sorte et bañ na ko ba li may parle sur le euh, contre su équipe di joué dañuy wax cees contre Diourbel Thiès contre jourbel man bi ma laa Thiès naa dañoo ne ma euh, euh, jàmm gën gagné na Diourbel lañ ma wax gagné tiw donc seen tur équipe sax du fa fés c'est Thiès ki jour la ñuy wax c'est Ziguinchor qui joue donc ñun nous avons le devoir soutenir et féliciter vraiment ñi fi ñëw ñëpp et vous dire encore une fois tant que vous êtes discipliné ñun dañuy ñëw li ma wax mbër yi jour bi ngeen fi wanee réew ne dañuy toog suñu kër juru leen ñu jëndu leen ñu falu leen ñu munu leen ñu folli je veux que ça soit très clair man dama woowar fi may wax nii man dama bokk ci ñi gëm ni yàllaa ma teg fii te moo ma fi jële mooy li honorable wax léegi affaire yi jiitu na suñu judd gënuñu fi nit ñi judd dàquñu leen a jàng gënuñu leen rafet donnuñu fi suñu bàyyi lu ñu li ñu amul mais c'est un décret divin donc man su ma ko gëmee damay gëm ni li ma war ci yéen dama ko war def sans attendre quoi que ce soit yàlla ñëw ak li mu war a ñëw moom mii bi muy nekk député un mois boo ko yeewoon ne ko di nga ko nekk bu la nekk da koy gëm day donc c'est ça donc jàppale leen may wax sànq te fa laay gis nga ñi yàlla jox ndomb tàng Cees na ñaan yàlla mu yokk xamul tax. jël leen année yi waal daan di dem phare national pot lañ daan jël di yalwaan jamono bi muy dem phare national famille Dieye ñoo ko gàddu ñeneen ñi di yalwaan yéen kenn tànnalul pot avant ngeen di dem les gens vous ont les conditions mais su ngeen ñaanul ñi nekk ci situation de responsabilité yokk bu leen ñaan ñu wàññeeku Abdou Mbow su wàccee kan mooy jël dem de gis ay xaritam ñu jox député ñu jox jàmm gën 4 millions kan moo koy def man su ma nekkatul maire maire bi dëkkatul Thiès nga yaakaar ne jël ay millions di leen indi fi. mais du ko def donc ñaan leen yàlla ministre Thierno Alassane ak honorable ak ñeneen ñi ñeneen ñëw fekk leen ci station de responsabilité ak ku mën a nekk ci kaw dëkk bi mais ñi fi nekk na leen yàlla conforté seen position yi pour que problème bu daan nekk benn wala ñaar ñu éclaté ko moom mu réglé benn ma réglé benn keneen réglé benn mais bu ñu amee une cinquième personne cinq millions bi ngay endossé s'il y a cinq responsables qui peuvent endosser les cinq millions c'est million par personne c'est ça le bi ñu war a am mais ay diw moom deful fii yàlla non def bi tam du ni mu ko defee tey ñu gërëm ko man ma def ko ñu gërëm ma Thierno Alassane def ko ñu gërëm ko bu ëllëgee su conditions yi réunir pour ñu def ko bu leen nit ñi xarab il faut être reconnaissant man nag foofu laa amoon ci lu may wax di remercier les dirigeants de Grand Thiès président ne nit ñi bàyyi di wax ay njool ngand la doo ngande lii ngay def dalaa war ay nit ñoo yoroon équipe bi di ko liggéey di ci ñafe nga am euh, pour jël ko xam lu ñu lay ñaanal yàlla boo échoué fii nit ñi yóbbu woon ay gune yóbbu ngeen fa Grand Thiès déjà parce que a gagné les phares nationales et cette année on a un club civil bu jëf pour une première année mu qualifié en en en mu monter en ligue en kii supérieure en division supérieure donc loolu la ñuy ñaan suñu ay xale ñu téye leen et j'ai dit que tant que Thiès n'a pas un club civil vers les Diamaguène R100 Grand Thiès am ko à l'image de Walidane jaxaw am ko c'est un échec na sénégalais yi bàyyi naan Nafissatou Thiam ay Séné ñun gëmuñu ni sénégalaise xam nga lu ñu gëm suñuy wut professionnel dañu ko wut ci yéen ñii wut ko ci athlètes yi daw ci dëkk bi mais doomu jaambur bu daw parce que ci am la sant nga koy jëleen ñun lijjantiwuñ loolu on croit en vous et incha allah on va vous conforter dans vos positions merci beaucoup